dañuy dañuy gërëm yàlla hmm? julli si moom n'est-ce sant ko julli si yonent bi sallallahu alayhi wa li nga xamante ne ni defal nañu ko parce que gis nañu ne élection yi euh, jaar na si yoon loolu dañ siy féliciter la ministère de l'intérieur mais féliciter également ki nga xamante ne moom mooy Abdoulaye Diouf Sarr suñu tête de liste départementale ak l'ensemble des candidats yi nga xamante ne amoon nañ ko dakaar parce que ils n'ont pas démérité liggéey nañ liggéey bu am solo boo xamante ne ni wax dëgg yàlla am na fu ñu jëlee ak fu ñu indi parce que gis nañu ne dakaar dañu dañ doon wuti Dakar parce que Dakar ñun gañewuñ koon loolu la nit ñu bëri di fàtte ñun gañewuñu koon Dakar en 2014 benn commune lañ gagné woon si 19 tey jii gagné nañu ñeent si si 19 yi muy Gorée muy Plateau muy Grand Dakar ah muy Cambérène loolu je pense que def nañu bon gars yi góorgóorlu nañu mais fu ne nii góorgóorlu nañu am kaat yaakaar naa ne beneen yoon dina ëpp loolu te damay wax rek nañ gën a góorlu parce que nag élection locale la ñuy perdre Dakar mais élection nationale bu fi musa am gis nañ ne benn Bokk Yaakaar gagné na Dakar présidentielle yi comme référendum bi comme li nga xamante ne moom mooy législative donc gaa gàcce ngaalaama li nga xamante ne moom mooy militant sympathisant responsable Benno Bokk Yaakaar waaw te aussi ma ne gis nga bu ñu yàpp nag bu fi kenn waxati ne élection mën nañ koo sàcc fii si Sénégal déedéet parce que gis nañu ne ñoom bu ñu gañee tëj nañu seen gémmiñ kenn waxul parce que xam nañ ne fichier bi leer na clair na si la ñu gagné xam nañu xam nañ ne aussi fraude mënta am fii nii si ay élection donc déggoo benn yoon ñu waxati si. début bi parce que yaakaaruñu woon ne dinañ am ndam yuuxu nañu ne fii am na fi ay transfert ñii ngi def lii ñii ngi def la mais après déggatoo leen ñu wax parce que euh, voilà gagné nañu moo tax donc pour dire que de élection fii si Sénégal kenn munatu ko sàcc donc loolu moom na nekk suñu ginnaaw bu ñu ko kenn waxati à l'avenir bu ko bu ko fi kenn waxati. élection dépassé nañu tey fu ñu koy sàcc fii ci Sénégal donc loolu il faut que ça soit très clair